sama gars yi maa ngi bëggee ñëpp naam seen bëgg ñëpp gars yi bëgg Mala Thion TV yëpp maa ngi bëggee sama gars yi sama gars moom je vais parler de wax si Dip Ngaaka ci fil après ma wax ci lan sax Dip Ngaaka après wax ci Akhlou Brick Tacko Fall ay ay ay ay Tacko Fall sama gars yi waaw sama gars bon Tacko Fall bi la ñuy njëkkee ah lu ñu njëkkee si Dip bi baa ñu njëkkee si Tacko Fall Akhlou Brick Akhlou Brick moom vraiment clip yu doob la ñuy def quoi vraiment clip bi moom uti nag clip bu Samba Peuzzi yi quoi parce que vraiment clip bu nice la ñuy defar quoi dañuy jëm génn invest quoi tu vois euh, nga jël ay euh, ay am sorry bëgg dañuy image bi quoi nga jël kii clip boobu dafa neex trop mais son bi gars yi ba léegi kii ñu ko quoi muy sama logo bi sama logo bi album son bu nice la clip bi tamit dafa nice tu vois am na fu muy dóoree nii ba danseur bi tëb waaye non clip bu nice mais son Tàggu Fall bi mm, son bi c'est nice tu vois drill la gars indi noonu la as da il faut s'adapter quoi en matière, en matière de, comment dirais-je, de, showbiz, quand on s'adapte pas, on disparaît. Parce ça fait des quoi. drill. Suba ñu indi krill wala miril wala leneen sen mais bo amé talent rek tu t'adaptes quoi. Pour mon football, quand on est un très bon joueur, entraîneur football. football. polyvalence. football, Parce que tu es intelligent, es football. Donc polyvalence bo Mais son bi sama gars yi nag dañoo sama gars yi nag maanaam dañu assumé nag sama gars yi nag yee sama gars yi nag fépp nañ nag sama gars yi rapport Dakar lañu rapport Dakar yi xam nga kan lañ ci mere nag ñoom rapport Dakar yi kuñ ci mere sama Akhlou Brick non mere nañ gars yi de déjà ne nag sànni sànnil bomb Dakar affaire yooyu quoi parce que ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi wane seen seen seen seen cofeel ci mbuur ne ñoom boobu guddi guddi mbuur mbuur la ñuy deewee tu vois donc def égo trip noonu jàpp rab Dakar bi comme ni kër gi defoon rek ni kër gi defoon euh, waa waa waa waa waa waa rapport Dakar ay temps yi fi Gaston nekkee ay Maxi Crézé ak ay Bibi Sow waa kër gi na leen rap Dakar bi mooy loolu dara bullshit la tu vois kii nii seen shit bi la kii gën a ñëw euh, Akhlou Brick mais euh, bu kër gi moo gënoon cru quoi mais bu Akhlou Brick ñëw na nee na rap Dakar bi mooy loolu quoi tu vois du dara booy mbuur ñoo yëngal booy fi nekk xamuñu dara Saint-Ville xas ñëpp beneen bi mooy boobu moom kii moo ko def moom Dayza Dayza moom il a un problème avec les rappeurs Dakar waa nee na xamu leen dara tu vois est loolu moo tax moom dafa gaay featuring dafa mel dafa jéppi waa daf Dakar <laughs> de dafa mel leen jéppi de daa am léegi moom noonu la dawale gaay yi quoi euh, mais boo jëlee partition wu aara moom nee na am na booy ko tamit ci aara dafa dafa gidee nee na bien maa ngi gis gars naan dafa war a changer flow mag non non non man j'aime bien ce flow parce boo demee ci yang tëg fële euh, États-Unis yaa ngi tëgg kenn xamul lu mu lil bay bi noonu lay def kii affaire yooyu noonu quoi te gars yi ils aiment bien donc c'est nga def benn pour man loolu sa mooy jaay quoi boo ñëwee rek aara wax lu leer non non déjà il est clair déjà lu muy wax leer na tu vois mais aara moom loolooy toujours quoi donc yaa ngi ñëw di kii man de je parviens bien je parviens à écouter waaw comme ay bërigo ci xott ay bërigo deful dara ci kekk waaw bëri bruit nee na booy dañuy ñëw nekk ci suuf teel bëgg yëg te prouvé wuñu quoi léegi man aara yan booy lay mboolay waxal rapport Mbour dafa ñu ko dafa am ñu si disrespect wala rab gaal seen bi affaire yooyu maa ngi gis gars yi ak bes lay waxal wala non waxul ak wax loolu ko métti moom new generation bi koy disrespect affaire yooyu noonu quoi ahlu brique lu ñu def lañ ko joob yàlla donc son bi loolu quoi désir dafa ñëw dalwaarab dakaar euh, aara ñëw moom kii comment dirais-je aara ñëw euh, aara ñëw wax ak waa <laughs> waa kii waa rab rab kii bi quoi rab booy booy ndaw yi ci sa sant un peu poussé des ailes quoi donc loolu la clip bu neex Taco Fall nee nañ affaire dafa kawe ñoom fi ñu ko aj dafa kawe ñoom ñooy Taco Fall wane benn benn course nii mu koy jéem a yóotu di sonn yenn rappeurs yi ndaw yi ay të jotaguñu foofu quoi level boobu naam seen game haut niveau la quoi booyee ñu ci suuf quoi naam seen bi dañu joowaat ba ci kanam Akhlou Brick lu mu def ni du hasard donc loolu la quoi Désiré moo ñëw jàppale pour waa Dakar yi ne bomb la leen sànni à de Mbour moom Mbour la ne que la ñëw kii donc thématique bi loolu la ñaari kii clip bi c'est bien fait dem nañ xaw ma mooy stade basket boobu xam nga nu mu tudd tu vois xam nga arena la xam nga fan la mais c'est bien c'est joli c'est joli tu yi ñu mën a cay aara léegi noonu laay transiter ñëw ci musiba naaru laay dama ne ma ne ma ay saa bi dafa neex lii lii I love this seytaane rambaj rambaaj lépp maa tey maa tey game la wax we playing man game comme làmb game ngay tam sa ndënd beneen mbër jóge fa la ji nii waaw Ngaaka dafa wàccee Samba Peuzzi album bu nickel la Samba Peuzzi génn nam seen mooy li may wax Barça du Real taxu Real bon Real bu jàppee la Adama kon nga doon ngi def it ngi def mi ngi na le 23 ah le 23 lay génn musiba naaru e YouTube Deezer affaire plateforme yëpp ndax benn single benn single ci si jar na yooyu tu vois mais Euh, nee day génn quoi man dafa ne IP e la sax pour man day def comme ni Ngaaka def quoi dip comme que Ngaaka ne woon na AIBD ñëw génn secret set fausse carte yi pour man dip daan dip 15 4 gars yi lii mu ñëw tuddee affaire bi musiba ñëw nag génn affaire kii yooyu affaire nightmare yooyu moom nee mooy naan mooy cauchemar gars ci affaire conseil bi mais j'aime bien j'aime bien mu génn ko euh, génn affaire bi tu vois génn moo xam IP e la moo xam son naa day ballon la xool peese ndax mi ngi pesé lu mu pesé ba léegi mi ngi koy poser parce que dafa def annonce rek xaw ay 1400 ñaata commentaires tu vois donc statistiquement Dip il est toujours là euh, mm, bon notoriété mi ngi fi ba quoi léegi il euh, li ma des déduire mooy Dip il met il met la couronne euh, sa couronne en jeu quoi faut mettre titre en jeu wàcc na fu ne nii la pression elle est du côté des des des des de Reptyle musique côté Dip li mo xone day ñew day yàgg may day ñëw ngaa ko fu ne ni day yor toog rek yor ben cure-dent am nan ni xolal cure am la yor rek nan ñoŋoñ ñoŋoñ ay ay kur daamam lay yor Issaoui Ville ngaa ko kur daamam lay di coŋoñ coŋoñi parce que pression bi ci dib la ne dib bu génnee lu xaw a lëw dañ naan that's the end seconde deuxième place day jël yinaam seen wala moo Akhlou Brick ñoo koy xëccoo ngaa ko jël na pay parce que ngaa ko moo jël deuxième Akhlou Brick jël troisième yinaam seen wana dikal jël quatre Omzo Dollar Canabas UEFA yinaam seen kii Samba Peuzzi sax UEFA Samba Peuzzi yéeg na UEFA tu vois ay BMJ ay ak bes ah El Diaz ñoo ñu nekk ay douzième treizième quatorzième ah ay Taïji Sine ah, am na si rapport ndaw yoo xam ngi ñëw ñoo ñu joué rapport yu rek ay ay sës ay Sedan ay kii ay Xetafe ñooñu mu maintien rek ñoom salaaw ñu yëg quoi mais Samba Peuzzi moom ni ngi UEFA yëg na UEFA quoi mu ngi yëg tu vois oh, corona bi la sama lu mi ngi def buzz fii rek baaj ku mu ngi def buzz donc di bi ci côté am la ne di pression bi ci côté am la ne parce que warul parce que fansam yi li ñu bëgg mooy lan moom mooy Bruce Lee fu ne nii bande bi dafa dóor euh, bande bi dafa ceet bande cooki fin lay fu ne cooki fin bi la tu vois ngaa na gars yi booy yi tu vois dip moo gën a ne moom mooy mooy wàcce quoi tu vois daf seen léegi fu ne <laughs> game bi neex na bu laay game bi dafa neex mais lu muy bëgg le 23 23 dafa sori single kese non dip 5 jours doy na wala 4 jours sax wala 10 23 garde suspense parce que tamit n'a pas droit à l'erreur nako ko togg bu rek parce que ngaa punya fa ni mom ngi diis ko ngaa dafa nek à l'aise fu ne way waaye saa yi ma wacce bi lii muy gëna pour wacce ba ngaa lolay wax naan mi ki la wara a pour pour pour sur ce recette bi parce que lolou tax ngaa nga ni ngaa dafa kii de te ngaa nga denc na benen arme nucléaire de ngaa nga ni classe kalashnikov bi la génn rek ak grenade ni mais denc na benen arme nucléaire parce que ma ngi dégg Pape sidifal Fall man sama son moy war nga te son boobu génnagul te xam Pape Sidi Fall moo jëkk génn nag album mu Ngaaka bi liggéey na nice na quoi donc Ngaaka denc na affaire yeneen bal yoo xam ne tey pour bu dibri posté tamit nu mu dóoraat donc guerre bi jeex nii moom ñaari ñooy xëccoo favori parce que Akhlou Brick tamit dafa mu ñëwaat euh, bi quoi foo ñu dexal lu bëri tu noonu la demee donc dip gars yi ba ngeen saaga lu tax ngay kii dëgg mooy ki mooy bàyyi you know what par les textes répondez par des sons dope répondez par les stats Ngaaka dafa ñëw bouleverser carte gi bouleverser hiérarchie Dip moo am pression fu nii tu vois dafa mel ni Modou Lo Ama Baldé su Modou daanee dañu naan garaawul Ama la liggéey yaay affaire mais su ko Ama daanee Modou il perd beaucoup de choses donc loolu fu mu ne nii donc gars

ñu xaar musiba naaru laay bi xool ndax EP la ah wala ballon de sonde la xool ndax fa ma nekkoon maa nga fa ndax kii parce que ngaaka moo fi jëlee wéradi wéradi ay xamal la ngaaka moo ko fi jëlee mais kii va détrôner ngaaka that's my question nga xam seen te nga nga tontu ci donc chronique bi dama koy waaj su ma sañoon sax dans quatre jours mu génn ma mën a def lépp ah mooy loolu quoi mooy loolu quoi nice na trop euh, Leuz Diwane ji panafricaine son bu neex euh, Walter White très bon yu neex quoi tu parce que is moom loolu zone la xam nga ay loolu top la xam nga weer da ko mën donc maay xaar musiba naaru laay bi ahlu birik yan booy ñoo leen tooñ yan booy lañ lañ noonu doolu ko sama kanam bu ñaaw génn ma la ci noonu maa